yoo xam ne rek daara yi ñu ngi liggéey liggéey bu am am solo ci xale yi ndax bu njëkk liñ daan dégg mooy internat yi xale internat ñoom ndax bu njëkk xale yu jigéen ñi dañ leen daa bàyyi ñuy jàng rek buñ wàccee tëdd buñ mën togg buñ mën dara waaye la bokk kon ñu ngi leen di di daara kon dafa mel ni ñi nga xam ne ndax dañuy wax ne ñoom ñoom moom bis bi ñeneen ñëpp dañuy barkeeloo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 تتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل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 يسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير السلام ورحمة الله وبركاته سرين شيخ جاي إدور مختار جاي ak soxna Gaye Fall soxna Kinde Fall soxna Kinde Fall waaw ah, soxna Kinde Fall bu jigéen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 قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجي نجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المصعون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية xale yi يواتي xam ne wàcc nañ kon xale yi wàcc gën a ubbi seenum xel ba bu déwénee ñu mokkal alxuraan seen parents nañ commencé waaj léegi bu ëllëgee bu ñu demee ba déwén kenn ku ci ne jàpp ne conférence bi yaa ko war a def maanaam jëf yi moom mën naa woyof tooy bu fekkente ne bàyyi nañ ko xel ndax buñ la présenté sa doom ne la wàcc na te nga xam ne am na la war a ca moom léegi nga ko commencé waajal ndax tey jii buñ jàppoon 2024 waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Baye Abdou Seck di doom ci sëriñ Alxaaji Seck ak soxna Mbooja Jaañ mingi ngi ci ñinga xamne ñoy barkelu ma barkeelu maa wax mingi ngi dëkk barab sànga waaye comme binduñ ko fi ma ki ko fa adam wa nuuxa sila a'udhu billahi minash shaytanir rajim bis boo xam ne turu soxna si feeñ na ci lu bare bare muy soxna sayyidatna Mariama loolu rek war naa tax ñun ñëpp ñu jug lamb suñu poos lépp luñ fi dañu indi ko dajale ko fii ma jox ko sëñ Xaadim mën suur mi ngi jox la soxla micro bi waaye dafa am fu ma koy xaaree moo tax waaye daal ñi ngi ñaan képp koo xam ne ñaan jataay bi nga fekk ñu fii nga génn li nga xam ne moo nekk sa nafa wala moo nekk sa poos nga teg ko ci taabal bi ñu dimbali ko ko ci fere yi nga xam ne moo jëm ci ci daara ji ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen ak ndaw na ñëpp ñëw su ko defee incha allahu taala ñu barkeeloo ko ci alquran ji nga xam ne Baye Abdou Seck tare na ko fi tare bu ama am solo jërëjëf jërëjëf macha allah bàyyiwuñ de na ñëpp ñëw rek macha allah Baye Abdou alquran ji neex na yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla defal la tawfiq bu déwénee nga mokkal alquranul karim waaw xam naa kon jox sëñ Mansour rek su ko defee am na lu bëgg a sànni incha allah bu ko kii ba pare ñu continuer ak xale yi ci kàttan yàlla. kon sëñ Mansour mën ngaa jël mën ngaa jël micro bi incha allah su ko defee amaa nga fi beneen kàddu. fay leen waaye asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. day wax ni benn xadis boo xam. قال صلى الله عليه وسلم man akramahu ñi nga xam ni bismillah bi ahlul quran ñooñu yàlla ci suuf mooy ñooñu alquranu karim yonent bi ni man akramahum ku leen teral ñoom ñoom ñii faxal akramta nii man yonent bi sala seen teral te wa man akrama nii faqad akrama Allah yow na yow tamit ku ma teral teral nga yàlla foofu laa bëgg lu teral xale yi mbooloo wax bismillahi xale bi ni xam ngeen loolu lan la toll ci yàlla xam xanaa xamu leen ko de tey ñey dem màkk aji ñun ñoo leen ëpp yoon ñun am na ni junni at yu yàlla nangu sa doom ba mu nee bisimilahi rahmaani rahiim rek yàlla fay na la junni aju yàlla nangu fay na junni omra yu yàlla nangu junni miskin yoo leel yàlla nangu ko waaye léegi loolu sa doom buy tar xuraan ngir yàlla li nekk ci poos yi génne leen ko jox leen ngir tee yàlla tax ki nga xam ne sa doom mbokkal xuraan yow mu doo doo dem safara yow safara doom génn génn na ci loola sa doom wàcc xuraan bokk nga ci loola waaye li nga fi indi du nga ko joxe table ji ba léegi lu lu ma cent mille francs fi loolu jaaduwul ci barke sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh na Tidiane ci barke ñi ki gëm jugaat leen ngeen indi ma fii xaalis góor góor ak jigéen la te doog te yàlla doog tax nag te yàlla tax jóg leen jóg leen leen ngeen indi tey te te te ngir yàlla te yàlla tax ngir yàlla te yàlla tax jóg leen mbooloo mi sàkku yàlla fii sàkku leen yàlla ku sàkku leen yàlla sàkku leen yàlla sàkku leen yàlla jóg leen jóg leen yàlla fi mu toll nag si seytaan yaa ngi téye tànk yi naa duma jóg jóg te yàlla tax loolu eh, ñun parents yi xale yi dañ ñoo defal teraanga joo xam ne mënuñ leen koo fay teraanga ji nga xam ne bu ëllëgee ci kanam sunu borom subhanahu wa taala teraanga du ko gën a kawe mooy ni borom Shaatibi yi di waxee rek hani am mari an walidaaka alayhima malabisu anwaari sunu borom na ko yow yaa yóbbu ci mbedd yi ci pénc mi giléem ngir radiyallahu anhu xam ne mokkal alquran karim lu rëy nañuy fexe bu ñu fi indaalee dara buñ ko delloowaat Lulu ama am solo ndax lepp lo joxe bo demé da nga am duko upp lepp lo joxe am duko upp kon suko defé dara jaangi ni wa dara waa Daaru ngi ni Serigne Khadim ngi ni ñi koy dimbalee ngi pecc ak and ko ki moromam di jangalé def ay résultat ubi dara kugu kugu dara mënu ko jaxé dara Serigne Khadim def fofu la jaar kon masya allahu taala man de amna naa fierté bu baakha baax ci sama doom ne ci dara ñu ànd di waxtaan ci luy doxal daara ji ànd koo mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo bàyyi seen daara ji bàyyi seen yitte ñëw fii ànd moom ci bis bi kon sëñ Xaadim jàmbaar la jàmbaar yi fëkk tëdd la kon dafa mel ni suñ première partie jeex na mooy ñi nga xam ne ñoo doon barkeelu ñoom suñ deuxième partie incha allahu taala am ci ñetti kaang yoo xam ne wat nañu alquranul karim su ko defee fexe ba li leen sant ñu koy def ñun tamit li nga xam ne bëgg nañ ci ñun euh, bëgg nañ ko ci ñun alquranul karim alqurana لبيك لبيك يا القرآن الكريم لبيك لبيك يا القرآن الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل macha allah sëñ Murtada Rafaa yi ñu ngi lay ndokkeel bu baax liggéey bi set na yàlla yàlla barkeel te gën a yaata liggéey bi waaye di ziar bu baax a baax mbokk bi nga xam ne moo dendeeg moom moom timit di cameraman incha allah taala euh, amul ñu liggéey liggéey bu gën a tedd liggéey bi su ko defee kon euh, sëñ Xaadim mi ngi noonu ak waajuru xale bi ak sëriñ Fàllu mi nga xam moo ko jox shahaadaam shahaada bi ñu fonk bu baax a baax ndax shahaada bi moo gën a rëy diplôme am ci suuf parents yu nekk ni bu fi jógee sax buñ ko xamoo dëgg-dëgg rek mën nañ di ko foyee di ko foyee ba mu ñu xotti ko sànni ko ci poubelle ba te lu jar a bàyyi xel la daal di koy aj ci saal bi nga xam ne danañ am accès di ko xool su ko defee xale bi ñi حسبك Cheikh Sall waa kay da ngay xaar ba ñu dem ak yow ci beneen barab bi incha allah bala ñoo dem ci beneen barab bi ñu. billahi minash shaytaani rajiim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 التي جرت فيما بيننا باي باي باي باي waaw asalaamaaleykum mbooloo mi. waaleykum salaam wa rahmatullah. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sallallahu alayhi wa sallam na ñun ñëpp. أنا وح الحمد لله رب العالمين نلقى وح الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يك يك لي دون يا الخيول قم الخيول لل nga yëg ko amul sa yaram lépp yëg ko lépp yëg mi yàlla xéewal na la nga sant ko ci xéewal gim la xéewal mbooloo mi lan moo gën a neex say say njaboot mokkal quran mbooloo mi lan moo gën a neex sa njaboot mën a jàng xar euh, euh, benn kalima ci ci ci alxuraan lan moo gën a neex ngay toog sa njaboot di jàng ñëpp dégg ni njàng mi neex na jaar na yoon loolu lan moo ko dàq ci xol dara amul ko dàq ci xol te ne ku fi toog yëg nga yëg yëg-yëg goo xam ni wallahi boo ñëwul woon lu mel nii doo ko yëg looloo nag sant yàlla la ci yëg-yëg boobu nag ki ko def si ñun kan la mooy ku yàlla baaxee ku baax lool ku yaru lool ba ba ba boo gisee sax da nga yëg ni yow da war a yaru muy sëñ Xaadim ja gis ngeen mbooloo mi nit am na alxuraan te yaruwul waaye dafa am loo xam ne yàlla ko def si nit muy sëñ Xaadim mi man na yàlla xam na ni ba téléphone sax da nga yëg ni kii kuy am yar la ko am teggin la li ko waral nag Qur'an lay dunde Qur'an mënoo koy dunde ñàkk yar baa nga ñàkk teggin mënul nekk yar googu mu nekk ci moom nag xool leen xale yi macha allah ci dal gi ci ci bëgg jàmm gi ci ci ci doylu gi xool xale yi tey koo ci gis rek loolu nga gis si moom sëñ Xaadim nit moo nal mokkal Alxuraan te duñu yaru ñibbi si indi la problème waaye ñun de wóor nañ mi ñi fi nekk ñëpp ku ñibbi tey def nañ ci yow yar boo xam ne bu nekk su loxo ñun suñu Xaadim kenn mun ko ci ñun yàlla yàlla barkal leen yàlla yàlla defal leen jàmm li wax daal daara ji nañ ci gën a jàpp mi nanu gën a jàpp ci daara ji nanu gën a jàpp ci daara ji lii ndam la loo xam ni sëñ Xaadim mii na nañu ko ginnaaw bi daal bi ko yàlla jaay ci loxoom wax naa ko sànq ko xamni dafa am ben ben benn nitu yàlla bu bax lol jël domam jox ko ben euh, serigne daara mu di jangal xala bi wacc mu niko lo jang jàng mu niko man de lo jang ñu mu allah euh, ni bismillahir rahmanir rahim la jang serigne ba kilifa gi jël lam alal ci alal or ak ba lepp jox ko ni ko dem la ko joxoon ko serigne ba mu ñëw jox ko serigne bi sey ni ko xanaa dafa joom delo ko ni ko lu dafa joom mënu ko déedéet yow yow ko jàng sama sama doom bisimillahi rahman rahim kan la mën a fay ban alxuraan nit munu ko fay nanu jàngal xale yi na na na na daaree fees mun de wóor na ma ni fii ñi fiy toj di yàq di lakk ñooñu daara bokkunu ci ci lu wóor a wóor ci nanu jàngal xale yi te ku bëgg boo génn àdduna nu lay xale yi xale nag moom moom dugal nga ci loo xam ne kenn xamul lan la wërsëg yàlla ko joxe baax yàlla ko joxe waaye nag yaakaar nañ ko ci daara alquranu karim yi ba na ñëpp jox seen doom yi ñu jàng te yàlla tax xam naa ni muy sonne ci xale yi xam naa ni ñuy sonne tamit tey forcé keroog bi ko Moustapha sama doom bi ma booleeg moom ne ko maire bi dafa bëgg jàng am ma ne ko bu reede mu ni déedéet man waxtu wi nga ma ko waxee tey tey jii laay commencé di la jàngal ma ne ko lu ma lay jox mu ne dara xanaa li ma bëgg mooy ngay ñëw di jàng si bis nekk te respecté ko su ma xëyee ndekki ba pare damay jël sama saak dem jàngi su ma añee ba pare du ma tëdd nelaw damay dem jàngi mu di ma jàngal di ma jàngal di ma jàngal ba damay toog ci sama biir néeg man dong yor sama téere toog di jàng ci biir néeg yàlla xam na te lépp ci moom laa ko jël kon man mënu ma koo fay ndax li mu def ci man kenn def ko ci man alxuraan bu ko def ci moom. maa ngi lay sant di la ñaanal yàlla yaa xam li nga bëgg yàlla la ko yàlla defal daara ji yàlla nekk daara yu gën a kawe. amiin amiin amiin ci am lu fekk ci également rek jërëjëf jërëjëf yaay booy kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk bi ñu tëj yëpp ak mbokk di ziare ñi seen liggéey ci kàddu yi rafet yi ak taxawaay bi macha allah ci gunge bi ngi seen xaar ci liggéey bi ci liggéey bu rafet bi ñu ngi sant mbooloo bi ci turu Baye Modou Sylla ci yi nga xamante ni parrainage bi nga xamante ni sëñ Xaadim jox na ko muy loo xamante ni kóllëre gu doxoon seen diggante waajur la seen ñaari waajur yi ñoo doon ay wëllëre nekk ay mbokk ba pare nekk xarit kóllëre boobu ñëwaat ak ñoom ñu bokkaat daara ba pare kóllëre nekkaat ay xarit ñu ñaan suñu borom yàlla ni ñoom ci ñu bu baax daara ji nag fépp fu ñuy dégg daara ji mag rek ñu dégg fa daara ji ci mokkal ak yar lépp rek te wax dëgg yàlla gis nañu gis nañu ci njàng mu rafet lool maxaar ji wóorul boo xam ne am na solo lool xale yi tamit mokkal nañ te teel nañoo mokkal ñi nga xam mokkalaguñ tamit gis nañ njàng mu rafet bi ñuy jàng bu baax bis bi di ci am mbégte lool nag di loo xam ne lu réer ci la euh, am xëy na dañoo mën a wax waaye li fas suñu mbégte toll muy kaa waxee foofu kon nag kontaan nañ ñoom. ñu ngi sant seen xarit baax bi sant ñi mu ànd liggéey ñi nga xam ne ñoo ko jàppale ci daara ndax daara moom dafa baaxoo ñoo ko taxaw ndax nañ leen tabax daara bu baax jàpp kon nañ fexe daara gën a taxaw gën a am doole su taxawee am doole rek yàqu-yàqu jamono yëpp du am. jërëjëf Mbaye Moustapha Sylla kàddu yi rafet na lool. Euh, asalaamaaleykum sëriñ Mouhamad Dia di doomi sëriñ Mamoor Dia ak soxna Mariama Dia soxna Mariam Dia waaw doomi sëriñ Mamoor Dia ak soxna Mariam Dia Mouhamad ginnaaw bi nga nuyoo iqra min qawlillahi tabaraka wa taala azza wa jalla baada audu billahi min alshaytani arrajim وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ñu santee yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq yu am ak ngërëm xam naa di jéggalu bu baax a baax ci kàddu yi ndax xam naa mënuñu wax ci mbooloo waaye nag dañ ciy dem suñu kem kàttan rek incha allah lu ci dëng ñu jéggal ñu ko xam naa kàddu yi nag moom du kàddu yi lenn lu di kàddu cant ak ngërëm rek la jëm ci mbooloo mi nga xamante ne bii ñoo wuy si woote bi te woote bi di woote bi lislaam ndax amul benn woote buñ mën a wuy ji bu gën a kawe bi bu ëpp ngërëm bu ëpp yaakaar bu dul woote bi alquranul karim kon ñu ngi naan yàlla kàddu yi dikk yi ak kàddu yi dal yi yàlla na ko yàlla def ci seen misaanul xasanaat ginnaaw loolu kàddu yi moom kàddu cant la rek xam naa ci jiital suñu waaju yi nga xamante ni bii suñu ñëw jamono suñu borom ci ñoom la ko jaarale ginnaaw ba nga xamante ne bii tuddi nañu turu baax waaye yóbbuñu ci daara ñu jàng xam-xam bi gën ci xam yi nga xam-xam mooy xam-xam bi nga xam mooy jariñ fii ci àdduna waaye ji jariñ ci àllaaxira ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax a baax te di leen ci ñaanal waaye di ci ñaanal suñu waajur jiitu borom bi subhanahu wa taala dolli ko yërmaande ak ngërëm gàttal kàddu yi rek naka noonu it di sant bu baax ak a ñaanal suñu sëriñ bi nga xamante ni bii moo ñu jàngal alquran muy sëriñ Abdullahi Dia di ñaan borom bi dolli leer yam ak ngërëm ak yërmaande waaye da ca teg suñu sëriñ bi ñu jàngal xam-xam muy xam-xamu sharia waaye daa mel ni ndawam teew na fi muy sëriñ biiru Dia ñu ngi jël kàddu cant yi ak di ko jaarale ci moom mu jottali ñu ko ndax amuñu fayam naka noonu ñi ngi sant ki nga xam ne mooy sëriñ Fadilu Ñang mi nga xam ne moo ñu teete ba tey ñu ñimee ubbi daara ne dañuy jàngale téere borom bi subhanahu wa taala cant yoo xam ne bii am na tàmbalikaay waaye amutam yamukaay ci gàttal waaye naka noonu di sant mbokkam mi Serigne Omar Touré nga xam ne bi ñu duggee fii ci Ndakaaru këram lañu njëkk a wàcc fanaan fa mu toppatoo ñu di suñu mag di suñu lépp di ko ñaanal moom it bu baax a baax waaye di sant suñu dëkkandoo yi nga xam ne ñoom lañ dëkkal waaye gannaaw loolu di leen jéggalu bu baax a baax a baax a baax ndax xam ngeen daara ak euh, ni mu mel daal yëngutu beeg coow leeg lu ne guddeeg bëccëg des fois sama nga malade ñu di la déranger yooyu yooyu yëpp ñu ngi koy jéggalu te di ko tuub bu baax a baax a baax waaye bu ñu jëlee ci antik rek teg ko ci suñu loxol yaay Aïcha nga xam ne moom la ñu jàkkaarlool kër mu nekk yaay daara ju baax lool damay am kersa sax yalla xamne ba jàppee bisu conférence ba légui togul ñu ngi sant bu baax di ñaanal waaye di ñaanal borom kërëm suñu baay daoud Sow momit ma sha allah di goor gu baax di goor gu bëgg lu baax di ñaanal moy borom bi dolli ak wir ak katan waaye di sant ñi nga xamne ñoo la laa bokkal nek ci daara ji ñu may jappalé ci liggéey bi muy suñu rak muy alxaaji Serigne Dia ak ya sayyida sohna aisha di leen sant bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla jàmbaar lañu lool ndax lii ku ko gis xam ne du ñun lépp ñoom la waaye ñu leen ñaanal bu baax rek borom bi subhanahu wa taala dolli leen waaye di sant bu baax a baax ñi nga xam ne bii ñoom lañu tudde bis yi bis bii ku mel ni suñu mag muy Baye Modou la wax dëgg yàlla comme ni mu ko waxee woon rek Ah, ca waajur ya la woon waaw kon ko suñu waajur jiitu na kon incha allah ñu jima mottali li nga xam ne mooy kóllëre gi doxoon ci suñu waajur rek bokk na li sabab ñu tudde ko bis bii di ko ñaan yàlla waaye mu nekk jàmbaar ci daara ji lool di ñaan borom bi jàppale ko bu baax ba defal ko lu kawe njortam daal ci li mu waaye di ñaanal suñu yaay soxna Safiyatu Jaak moom daa baax rek wax dëgg yàlla waaye ñun moom moom daal ak baaxam lan mën a wax waaye moom ñun dégluñu ko dara daal ndax xale yi xam nañ ko bu baax a baax waaw donc ab daara yaakaar naa képp kum tàgg ak baaxam rek kooku baax la waaw ndax ku jàppale ci daara ji la ay mat la waaye ji bu événement xewee yi nga xam te ne bu war a soppi cin yooyu yëpp da ci daan taxaw bu baax a baax ba ñu nekk Patte ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom dëgëral ko kàttanal ko te defal ko taw tawfiq waaye di sant bu baax a baax a baax nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey ba tey muy suñu parents d'élèves yii waaye ka nekk ca bopp ba di sëriñ man Mansour moom it di ko ñaanal yàlla bu baax yàlla dëgëral ko te kàttanal ko ba yéen a jëm am borom bi defal ko lu kawe njortam ku bëgg lu baax la wax dëgg yàlla te ku jàmbaare la. waaye ku rafet xalaat la ndeysaan ñu ngi ko a baax waaye ñaan googu yàlla na rogalaan ci mboolem parents d'élèves yëpp ba ak ci mboolem jullit yëpp rek barkeb alxuraan kàddu gi moom comme ne nan gàtt nan ko gàttal rek waaye di mboolem équipe bi nekkal ci biir liggéey rek rek moo xam suñu rak soxna bu jàpp ak sunu soxna yi nekkal ci biir ñuy jàppale ci fóot meeg togg gi ñoom ñu ngi leen sant di leen ñaanal yàlla tout temps yi nga xam ne am nañ ko fi yàlla def ci ñoom barke waaye yàlla def ci ñoom barke waaye di sant bu baax suñu mbokki ustaas yi nga xam ne teew nañ fi comme niñ ko jàllalee léegi nga xam ne ñoom laa nekk ndooloon ca Parcelles Assainies ci daara Serigne Fadilou su ma tuddee ku mel ni Serigne Moudou Niang rek day yóbbaale ñëpp waaye ku mel ni Serigne Mamor Ka jóge ba Touba moom it macha allah ñu ngi ñaan ñaanal ñëpp xam naa tudd ñëpp du yomb ndax waxtu daa xaw xat waaye bu ñu tuddee kenn wala ñaar rek dana yóbbaale ñëpp waaye di sant suñu imam bu baax a baax mi ngi toog moom it di ko baax di ko ñaanal yàlla yàlla dëgëral ko te kattanal ko barke alquran waaye di sant suñu mbokki bopp ñoom bàyyi ko ba Daaru Salaam ak Touba teew fi moo xam suñu yaay lan wala suñu rakk ñu ngi nii toog ñoom ñëpp di ñaanal yàlla li ñu bëgg ñoo ko xam yàlla na yàlla defal leen ko waaye di sant bu baax a baax suñuy euh, mbokk yépp rek moo xam waajur yi góor yi la wala waajur yu jigéen ñi ñu ngi lu baax ci kàddu gi ak ci guddal gi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te def ñu ñu fekk ko at yu bare baree baree bari te lépp ànd ngërëmal borom bi subhanahu wa taala ndax lépp lu waaye am te amul ngërëmal yàlla rek loolee du dara fii loo ko waay gis rek day jeex yal nañu yàlla yàlla nañ nekk ci loo xam ne daal borom bi subhanahu wa taala da koy gërëm loo ba keroog ñu koy wujji rek insha allah taala kàddu gi moom mënta guddi ndax mën wax ñi ngi yemal foofu kàddu gi di ñaan yàlla mu def ñu tawfik lépp lu jub rek ñu sant ko borom bi lu ci dëgg nag sunu matadi la wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain jërëjëf lépp man allah wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقي في تاويه بنيغلين دي نيو di leen ziar di leen tatagal di leen safoo di leen dalal jàmm bu baax a baax ndax loolu ñun la war loolu ñun la war Serigne Khadim bu xewlee ñun ñoo war a ñëw dalal gan yi dalal gan yi kon ñu ngi leen di nuyu di safoo seen wuy gi lool lool xam nañ ne alxuraan moo leen yëkkati waaye nag ñun ñi woote tamit bu ñu geesoo gis seen wet yéen ñun ñëpp dinañ leen sant bi ci topp nag ñu war a jàllale kàddu ci turu daara ji ndax am na kàddu yoo xam ne sëriñ xaarim dafa xaw a mal placé taxaw di ko wax liñ naan nit mun wax ci sa bopp daa metti moo tax tey nit itam ki nga yëkkate jox ko doomam am na loolu mënoo ko cee xam benn ñi ko yar wala ñi ko jur wala ñi ànd ak moom ñoo ko mën a tax wax ko xam nañ ne doyloo ngeen ko ba jox ko seen doom ba nag waaye war nañ di dalal seen xel ci ay kàddu yoo xam ne xam ngeen ne jox ngeen koo leen ko koo leen ko mat a jox lenn daal xam naa ne lenn xam naa ko ci moom euh, ku amul judd la Lislam da koy baye xel nak lele nga deg ñu wax ba ca top it am na yar la ci jitu moy jangal nañ ko yar nañ ko xam-xam bi ci xam-xam bi ci mom ak bi ci yar bi man nako joxe wat nit dana am jangga am yar way du am pédagogie joxe xam-xam mom nag lolu yalla def mako Peda gogla pédagogue la xam ko fi may wax ak yow ni buma amone ko mata dem dara ko xamne ne am ci señ señ mom la koy jox mo ne damay jangale de waye lima fi gis ni nam ma ngi daan ñew ci daara ji di ko conseiller ndax man mako ko ci loxo seigne galas ba de man la ko ay waajuram bolel ma teg ko ci loxo seigne galas waye lama lama lama ma confiance bama amone ci mom bama ma koy jox galas seigne galas tarbiyewaat na ko formé na ko ba def ci mom limu def ci mom la ko waral nak ko yam ci loxo wi ni néewaa bu ñew dakar am patient tok fi bañ nopi ci mom mom nak ba jang xaar na bañ nopi ci mom bi ñewé ñëwee formé nak ak formé du benn la daa am bu amoon xale bi da doon liggéeyal sëriñ bi pour jëli fa bàyyi loolu nag waajur bi moo ci uutu euh, nu mu tuddati bi moo ci uutu euh, xale bi kon nag na fexe ba sàkkul barke doomam xam-xam yi bari na léegi de waaye xam-xam boo xamante ne nit ña boroom dana jariñ lool boroom xam li ëpp ci bari nañu jàng lool moo xam ci côté kuy bind ndeyjoor wala kuy bind jëm mooy la waaye bu waxee wala mu jëf nga ne accam la ko waral barke baa des nañ dimb fàggul xale yi barke te la ci jiitu mooy li ñu sartonteeg sëriñ xaadim ci daara ji ñu di ko def loola mooy li nga xamante moom obligatoire la mënut ñàkk mënut a ñàkk nañu ci dimbali te yàlla tax bi ci toppaat itam mooy la ca desaat mooy tabarruaat yi mooy li nga xamante nit ki moo koy def ci coobareem loolay daara ji ubbil na ci buntam ñëpp <coughs> daara yi ubbil na ci buntam ñëpp ba ci jiitu mooy xam ngeen ne daara ji ci location la nekk metti na mënut a sëriñ xaarim ñang ma la ci aafe di suñu jëwriñ da daan wax naan maara day taali yàlla na yeex waaye ku ci faatu te eggoo fa nga jëm rek daara ji leneen la ñuy wax waaye du doon lool ndax kër gu ñuy luye moom doonagul daara da nga caa jàppandi rek moom nag la ko war ci jëmmam def na waaye li ñuy daj ci jàkka yi ak yeneen yi buñ ko dajoon ci daara ba léegi romb nañ fii koñ boo dugg da nga fay fekk fukki jàkk ak juróom-ñett te jàkka joo jàkka joo ci këlay jiite bu taxawee ci kanam la ëpp a bari ngeen baal ci kàddu gi bu jàngee alxuraan yi dana sant jaxate lool ñi sant jaxate wala loo wala silla alxuraan ji yéeme ne la ko waral nag dañoo jiitalul jàkka dañoo jiitalul daara teg ci daara fa ñuy formé ñuy taxawu jàkka moom lañ sàggane moom lañ sàggee bi ci toppaatam xam ngeen ni valeurs yi xaw naa doy waar lool jikko yi kenn xamul li xew léegi lan la la ko waral nag mooy buñ joxee ñii dongo yi nañ leen bàyyi bañ noppi ci ñoom nañ leen bàyyi bañ nekk ci ñoom nañ leen fexe ba jàngal leen alxuraan bañ mokkal ko ba ca toppaat am na programme bu cay topp boo xam ne nañ fi bàyyi xale yi waaye mokkal alxuraan nga ne ko coppit yóbbu bu demee ren déwén bu ñëwee boo ko ne jàngal saar wala aaya sàngam doo xam la cay topp ñaareel ba jikko yi wacc na ndax ñii fi ne dañuy door a tàmbali ci ñoom rek ñu fexe ba lañ fi jóge ñu me ñu bàyyi leen fi ab diir ñu maintenir ko ñaareel bay diir bu ñu koy maintenir ñu jàng xam ndax alxuraan bu ñu koy wax itam ngànnaay la lu mën a a dagg kañ lay dagg bu borom bu àndee xam bàyyi leen ko xel amul am na un jour buy ñëwee ji mën naa am sax dinañ toog pour lancer projet bi bu ngeen xoolee fële ca ginnaaw insha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu xam naa xaw gee ragal gëj a téye micro ma waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu mën ngaa taxaw lu tuuti rek ñi jël shahada bi sëñ Fallou Seck ana nga sëñ Fallou Seck waaw da ngay yëg nga la ci photo bi nga toog ne nga barkeel ñaari aaya moom rakk la ci sëñ Cheikhouna Seck moom ñoo xam ne mbokk lu waaye ñu bëgg koo terale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 حسبك صدق الله العظيم jërëjëf Serigne Fallou Seck kon xam naa ñu joxe shahada taqdir yi nga xam ne ay aaya alquran yu ama am solo la su ko defee dañuy woo Serigne Omar Niang Serigne Omar Niang moom mooy jox Serigne Cheikhouna Seck shahada bi Serigne Cheikhouna nag mooy li wax léegi rek Serigne Khadim sëñ Xaadim sëñ Omar moo koy jox moom sëñ Fallou Seck shahada taqrir shahada bi nga xam ne moom la war jox sëñ Cheikhouna su ko defee bu demee mu yóbbaale ko ko incha allah kon euh, Baye Abdou a ñaanal te dañ koy jox incha bu demee feet Touba yokk seen seexuna incha allahu taala macha allah jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla barkeel mu ko seet billahi min ashaytan rajim اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرنا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 تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين